nga dem yow di fa sàkku jigéen joo xam ne di sa soxna di la bësal te say soxna ñoo la war a bësal kooku rafetul ci lislaam rafetul ci moral ndax bu leen fàtte ne états d d'Amérique muy réew mi gën a démocratique mhm. bu jéemoon nañu wàcce président bi pour ne ndax wax na ak secrétaire am wala wéet na ak moom ci bureau am wala d'accord bañ tribunal ko ba nga xam ne daanaka cinquante cinquante la donc su fekkee ne Sénégal dañoo am koo xam ne dafa am parti di sàkku pour nekk njiit mhm. njiit xerañ ca la bokk ay du xerañ rek jikkoo it ca la bokk d'accord euh, euh, docteur nga baal ma xam naa ne foofu dinañ fa dinañ fa xuus boo gisee ma njëkk la laaj lan la yàlla wax ci ci tuuma ndaxte tuuma lañ ko mën a gum mën a gum tuddee ndax euh, wax ji mu ngi doog a jug Ousmane Sonko wedd na ne euh, deful dara xale bu jigéen bi waaye weddeegul ni daanul woon dem ci institut de ba su fekkoon ne moom tey dafa def communiqué. waaw ne man usmaan foofu mësuma faa taxaw. waaw mosuma faa bëslu. waaw jigéen mosuma bës foofu sama jabar ci laaye moo may bësal yépp mhm. man ma publiquement ma ne ko Ousmane jéggal ma baal ma d'accord. waaye nag bu loola saxee muy tëjoo ak jigéen te moom muy bërëmi jabar bu nekkuloon bërëmi jabar sax dana gën a oyof ndax kon àtte bi lislaam dañ koy bàcc bàccee rek bàyyi mu dem. mais xam nga institut de nit mu fay dem euh, fekk euh, dafay. def wax àtte institut de wax ma àtte lislaam àtte islaam laay wax institut de boppam la. <laughs> d'accord bàyyi mu dama ne la. <laughs> Uh-huh. lislaam bépp góor bu am jabar. Hmm. wéet ak jigéen ci néeg. ngeen tëj loola atte njaaloo lañ lay atte kon yow daal jàpp nga ni Ousmane Sonko euh, fii léegi ñu ngi jàpp ni daan na dem foofu noonu. li mu def ci nga loolu bu dee réew la comme Arabie Saoudite. waaw dañ koy rey dañ koy jam xeer ba mu dee. réew yi yu koy appliqué du réewu jullit yëpp ñoo koy appliqué mais am na réew yu koy appliqué Iran ci la bokk Arabie Saoudite ci la bokk ak yeneen yi réew dégg nga euh, est-ce que coow li lu nekkul li mu dal ci Ousmane Sonko c'est-à-dire bu ñu wax ne yow wax boo bëggee wax boo xam ne dafay wane institut de beauté boo fa duggee wéet jigéen kon léegi institut de beauté la du kër du ruq du leneen lépp ruq la d'accord d'accord ma ne est-ce que euh, nekkul ne bul fàtte ne waaw bâtiment ba ni ma koy ci ci photo yi ngeen publier bâtiment bu rose la waaw kooku kër gu ñu tëj la de dama ne maison rose la boole ci parce que boo dee jàng ci lislaam dañuy wax na ci jamonoy jaahiliye jamono yi fi yonent bi mhm. yàlla yónneegu ko ba mu muy am ay fanweeri at ak nàngam ba ba ci ñeent fukki at yi bi muy matee mhm. dañoo jigéen ñoo xam ne bu bëccëgee dañuy takk ay drapeau yu xonq pour wane ni fii jëfandikukaay la ku ñëw dal fii ñu toppatoo la ca la ca aju bu dee guddi dañuy taal ay sawara pour ki nekk fële ci àll bi di ñëw seen leen xam ne ñooñu kër jëfandikoo la kon nag kër gi nga xam ne non seulement dañ koo tëj ay jigéen di fa bësal góor mais su fekkee woon ne dafa amoon ku góor koo xam ne moom la fay fekk mu di ko bës kon wax amul. kon wax du am. d' accord d' mais est ce que du lim nekk Ousmane Sonko moo tax coow lu bari gisoon nañ fi ay jamono yële weesu Idrissa Seck mu ngi toog dem ci institut de beauté euh, xale bu jigéen di ko defaral ay tànkam ay pédicure di def pédicure manicure xale bu jigéen moo ko doon defal du jabaram te coow li jugul woon comme coow lii nii nim nim nim nim dafa mel ni yow dangaa man boo mënta dégg doo mën a déggal nit ñi da ngay dégg waxuma daggi we toog nii ñëpp toog ñu la daggal we même bu dee loola lislaam rafetlu ko waxuma nag ne santaane santaane na ko santaane wu ko mhm. rafetlu ko toog nii jigéen la daggal say we bu dul sa jabar wala sa doom rafetlu ko mais nag tëju tëju laa wax d'accord su fekkee ne mu dafay ñëw summeeku. xam na ca dagg am soxla mooy summeeku ki summeeku dugg ci néeg tëdd kooka jigéen di la bësal nga bàyyi fa say soxna. Mhm. am nga problème ak yàlla. d'accord euh, loolu moom mooy. waaw bi ci des. su fekkee ne wax nañu ne moom dafay yore ngànnaay bu yore ngànnaay ki koy séen du ko xam. mais bu summee ko. buy hmm. àndee ngànnaay ngànnaay li feeñ. waaw man damay wax ak comme nit ñëpp rek comme un simple citoyen. waaw xelu kenn. Hmm. gënuma mel nenn lu hmm. ñeneen ñi melul am na sax ñu ma gën a euh, ëpp ay xalaat ak yeneen ak yeneen. d'accord man damay réagir comme benn citoyen sénégalais simple. bu wax ne man du ma rafetlu. benn góor bu am jabar di dem di tëdd tëju karaj karaj ak nit pour mu jigéen mu di la bësal wala l'inverse itam jigéen ji am jëkkër mhm. bàyyi fii jëkkëram dem tëju ak góor tëdd am na fi mhm. mu di ko bësël ñaar yooyu benn àtte la su fekkee nag bu doon jigéen la duñ ko rafetlu kon bu dee góor itam duñ ko rafetlu d'accord euh, ndax l'islam amul lu jëm ci genre d'accord lu ñaaw ci jigéen ñaaw na na ci góor d'accord jërëjëf docteur mbokk yi di leen fàttali ñu ngi toog ak docteur Ahmed Khalifa Niass ci li nga xamante ni moom moo xew euh, ci euh, euh, Ousmane Sonko président bu PASTEF moom la ñuy waxtaanee ah, moo ñu tax a jóg ñu génn tuuti ci cadre lislaam ñu wax ci cadre Ousmane Sonko ak Sénégal. kilifa gu toll ni moom euh, ak ñu ngi doon wax naan moom moo war a nekk leader de l'opposition tey ñu koy dégg ci euh, yenn yu mel ni ñenn ñi nee nañ campagne de dénigrement la ñenn ñi nee nañ lu ci mën a am euh, moom la personne de Ousmane Sonko warul woon def li ni mel lan moo ci sa xalaat. waaw man mooy loolu rek man daal wax dëgg yàlla. Hmm. wax dëgg yàlla nag ak lu ñu ñàkk a ñàkk ñàkk déggoo ci ci wàllu politique. Hmm. amoon naa un certain respect pour la personne. waaye nag nit koo xam ne dafay bàyyi ay soxnaam ak peut-être sax ak seeni doom di dem di tànn pour jigéen bësal ko te yàlla araamal loolu te moom ci boppam ñu gis ko ba tàyyi muy jàng ay laay alxuraan di génne ay hadis di jàngale mhm. ba sax man mii ci laa bokk ñu taxe ko kom koo xam ne dafa am euh, dafa jegewantoo Mm-hmm. ak euh, ñi nga xam ne ñoo ay fondamentalistes. parce que am na relation yu kii ak Farah am na ñu sax euh, taalibe Amad loola kii euh, waaw mooy kooku. Uh-huh. dégg nga kon nag kooku bu amee su fekkee ne dafa wanewuloon le visage. bu bu kii quoi pieux bi nga xam ne nit ku ragal yàlla. Mm-hmm. kuy def li yàlla wax di bàyyi li mu ko santaane kon duñ ci am problème ndax am na fii ñoo xam ne amul dara lu nëbb. dañuy toog di naan di tux di yàmba di. Mhm. def leneen ak leneen. Mhm. kon dana nekk moins. d'accord waaw kon dafay nekk moins. waaye su fekkee ne yow da ngaa am seetu seetu bi nga xool ci. Mhm. mu jël sa kanam gi nga gis ci muus. waaw wala janax wala leneen. <laughs> kon seetu boobu du seetu bu jara a seetu. d'accord seetu bi mooy li nga gis li ne ci yow muy lii génn ci seetu bi. d'accord maanaam reflet ki nga xam ne dangay ne bu deux mille vingt quatre damay ñëw nit ñi fal ma. Mm-hmm. am na loo xam ne sañoo koo doxal. d'accord nga man mii di wax ak yow tey. bu ma jaaroon. ci benn koñ boo xam ne baara nga fa te mënuma faa ñàkk a jaar. Hmm. damaa war a jaar ci trottoir bële. waaye warumaa romb buntu baar bi. d'accord te pourtant am ñu fa ne di te citoyen lañ ni man. boo demee fii Lamine Gueye am na fa jàkka joo xam ne ci baar bi lay julli te donc loolu mm-hmm. doy na pour tegtale maanaam dafa am loo xam ne li ñuy wax ñiy fas di fecci te alaakulli xaalin ca la bokk am na loo xam ne dañ ko war a teggi borom bu mbubb mu weex du jaar ci mbedd boo xam ne suuf sa dafa am li ñuy wax botoxo botoxo waaw nga xam ne bu fa jaaree yéreem tilim war daf koo war a teggi wëri jaaree ji neneen man loolu rek laa wax. su fekkee nag ne moom dem na di bës lu ndaw si. Ah. même bu fekkente ne liñ koy jiñ def ko sax. mais bës waxuma jëf ji la nekk. waa man dama ne rek bu demee daf fee bàyyi ay jabaram. di dem di bës lu jiniin di bës loo jiniin jigéen. Mhm. di tëjoog moom di summeeku pour kookoo war koo bësal. Ah. loola dana tas sama. respect ci moom man personnellement. bu ma ko respecté woon cent xëy na wàcc na ba ci trois. d'accord waaye 97 yi moom daanu na. parce que. Mhm. foofu mu dem ñi nga xam ne woteel nañ ko euh, daf leen fab bi dafa tas seen yaakaar. d'accord parce que gëmuñu woon ne. kuy bàyyi ñaari jabaram te kenn ka xëy na xaw ma sax ñaar dañuy muuru mm-hmm. mu muuruloo jabaram di dem di futteeku ci kaw kanam jigéen ba set wecc pour kooku war koo bësal mm-hmm. loolu moom diine rafetlu ko moral rafetlu ko règle sociale rafetlu ko d'accord su fekkee nag mosu faa dëgg tànkam waaye waaye Sonko baal ma ak <laughs> wala moom mu wax sax ne mosu faa dëgg tànkam bu ko waxee man ma baal ko ak publiquement excuse publique laa koy jox